الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه yi nu ngi sant sunu aji màgg ji te kawe nga xamante ni bokk na ci ay màggaayam moom sunu boroom mooy ñi nga xamante ni ñoo amoon doole ci kaw suuf nekkoon ñu doon mbër mbërlu boroom bi subhanahu wa taala moo te loolu seeni xabaar alquran di ko nettali borom bi day ñi nga xam ni ñoo bewoon ba mënatuñoo yëpp nekk gi sunu borom nekk seen borom ñooñu sunu borom subhanahu wa taala moo rëq seen digg ba ñu fàtte leen te loolee alquran mi ngi koy nettali borom bi day subhanahu wa moo dugal ci tawfiqam yërmandeeg yee ci xolub képp ku gëm yàlla ba mu yëg ni yàlla rek mooy boromam mu tàmbalee di ko jaamu. bàyyi leen xel ni suñu borom day bu nammee defar dafay mel ni kuy yàq firaaw na ba muy dund saay saay lool sunu borom daf ko bàyyee woon ak doole muy noggatoo ko bunduxatal aw xeetam di rey góor ña di di ndoggatu jigéen ña fitna ya mel noo xam ni melatu ni ci kaw suuf mukk waaye sunu borom ba mu yabalee Muusa alayhi salaatu wa salaam ca la alkanday firaaw na dikkee kon buy nammee defar day mel ni kuy yàq moo tax mu ne wa nuridu an namunna ala alladina istudaifu fi l ard wa najcalahum a'immatan wa najcalahum alwarithin sunu borom mu ni dañoo nam ma baaxee ñi gëm yàlla ci kaw suuf rawatina ñooñu nga xam ne ñu ngi leen di néewal doole ngir ñu def leen ay imaam def leen ay njiit def leen it koom-koom bi nekk ci kaw suuf ñoom ñoo koy doon nu ngi seede ni yàlla rek subhanahu wa taala moom mooy buur ci addina bi war ngal këpp moom rek lañ war a jaamu lu ñu ko war a bokkaaleel moomam nguur mooy yeyoo cant lu ne moo ci am kàttan yàlla moom day subhanahu wa ku màgg la ku foor la ku sell la moomam asamaane juróom-yaar suufi juróom-ñaar moom mooy borom aras ju màgg ji muhammad day ndawam la sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko tànn ci tànnee fi xeet wi bàyyi ko nag mu daal di ñaanal aw xeetam yàlla dafa leen ndimbal ak jekku waaye daf leen a digal nag nañ muñ te nañ wóolu yàlla seen borom sunu borom dooleel na ñi gëm yàlla ci seen ngëm gi ginnaaw bu ñu toroxee woon ci kaw suuf sunu borom may leen am koom-koom ginnaaw bu ñu ko ñàkkee waaye sunu borom dajale leen ginnaaw bu ñu teqalikoo xeet wi nag aw turam dal di jóg ba faw dootul daanoo te muy xeetu lislaam wi daawa bi dal di am aw ba faw ba yowmal qiyaama kon yàlla na sunu borom dëkkee julli ak sëlmal ak yàcc yërmande xéewalam ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain mbokk yi ñu ngi dénk sunu bopp di leen dénk fàttaliku yàlla ak di ko ragal loolu de mooy dénkaane bi gën a foor bi sunu borom dénk ñu ci kaw suuf ñu bàyyi xel ni dafa bokk ci màndargay ngëm yàlla mooy aji gëm ji di yëg li mbokki jullitam yi yëg ci àddina bi yëpp mu di ko mettitlu su fekkee lu metti la mu di ko bégloo su fekkee lu neex la lislaam jii kat dafa bokk ci seeni shiar muy seeni màndarga mooy jenn jëmm la boo dompatee tànk bi yaram yépp dafa yëg mettit bi loolu mooy jaaduwut ab julit dégg ni barab sàngam ay mbokki julitam sonn nañ fa ñu ngi leen di fitnaal te moom am na jàmm te moom am na jàmm te moom yëgut mettit woowa mettit luwu ko loolu la muy wane mooy kooku ngëm yàlla am des na waaye ngëm yàlla ku mu ci moom saa bu déggee benn jullit bu ñuy mettital ci kaw suuf rek dafay mel ni moom lañuy ñuy mettital wala baayam wala yaayam ndax yëg-yëg boobu mbokk yi moom lañu am déedéet li koy firndeel mooy jaaduwut moos ñun ñu nekk fi di lekk ak a naan di bànneexu ci suñuy mbiri àddina te fekk am na sunuy mbokki jullit yoo xam ne ci àddina bi ump ñu ñi ngi koy yëg média yaa ngi ciy wax télévision baa ngi ciy wax euh, journalist yaa ngi ciy wax àddina bi warngal képp ñi ngi lancé di yëgal nit ñi kat ab xeex am na ci barab sàngam ñu jàpp fa ay doomi jullit ay góor ak jigéen di leen bunduxataal di leen toroxal te yow yaa ngi am jàmm nee nga dara xewut waaw kay say mbokk yi nga bokkal deret dañ faa newut say mbokk yi nga bokkal deret dañ faa newut réew moomu nga xam ni li wér te wóor ma mooy ñiy wax dañuy wax rek waaye ñi xam ñoom xam nañ te ñi xam li ñu xam mooy ña fa nekk lay seen yitte mooy nañu fexe ba lislaam ci boppam bu mu fa am doole ndax réew la boo xam ni saytukat yi kat gis nañ ni réew la mu am am koom réew la moo xamante ni dana am avenir ca kanam te jullit ñi amaana ña nga fa kon nañ leen fa faagaagal ñu jóge fa leneen lu la waay wax lu tut lii kooka wax na lu amut lii rek la mbir mi coow li coow li loolu la muy xew-xew boobu am ci centre Afrique dëgg la suñu njiitu réew def na lu rafet keroog bi xew-xew bi amee suñu njiitam réew def na li njiitu réew lu baax di def ndax nit bu defee lu baaxit wax ko lu baax la dana encouragé ñi ci des yónnee avion ñu jëli ña nga xam ne ñoom ñooy ña fa nekk di doomi réewam loola lu rëy la lu lu tax mu def ko moo ko xam waaye lu rëy la moom waaye ndax yëg-yëg yi foofu la war a yem li lay wan ni maanaam jullit ñi ci seen jëmmi bopp ñoom yëgum sax lu xew keroog ba ñu déggee loola ñëpp a ngi tëb a dal nañu gaaw jëli doomi senegal yi nekk centre Afrique ñu def loola ñu gaaw jëli doomi senegal ya fa nekk indi léegi nag ña fa des te du duñu doomi Sénégal waaye ay jullit lañ ndax coow lañ doon coow pour nañ indi doomi Sénégal yi est ce que ñi ngi koy coow tey ngir ni ña ngay teg doomi ña fa nekk di ay julit ay fitna yu metti yàlla de dafa def xeet bi dafa war a mel ni benn jëmm fu metti rek feneen fa yëg ko centre Afrique day mbokk yi lu metti ma nga fay xew loo xam ni xawma julit ñi yëg nañ ko wala yëguñu ko médias yi nag léeg-léeg ñi koy topp danañ di dégg ni am na lu xew waaye xaqiqatu la xew moom duñ ko xam li réew moo xam ni ba ñu jógee ca saytug yéefér yi ca jamonoy lu jiitu 60 dañ koo tegoon ci loxol ab yéefér comme ni Sénégal réew mi tege woon ci loxob yéefér ñu dox tuuti koo ko jóge fa ñu tegaat ko ci loxol ka ca topp mu di yéefér loolu lépp ay xeeti tic tak la yoo xam ne nit ñi dañ koo tëroon ngir ni réew mi nañu fexe ba ab jullit bu mu fi am doole parce que gis nañ ni population bi ni jullit ñuy yokkoo dafa gaaw parce que ñoo ëpp lu ñuy takk ñoo ëpp lu ñuy jur te bu fi jullit ñi amee doole koom-koomu réew mi fi ne mi ngi tàmbalee tege ci seen loxo ndax ku dem centre Afrique fi mu nekk nii ay cadre yu mag yoo xam ne ay jullit lañ ñu ngi fay tàmbalee am loola nag gis nañ ni jëmuñ kër jëmul kër tax nañu tàmbalee ubbi ab buntu di bu doxataal jullit ña jàpp nga di fi ne jàmm am na ndax say doomi réew ñëw na waaye jàpp naa ne bu fekkoon yëg-yëgab lislaam mi ngi ci yow di nga yëg ni am na ñoo xam ni pas-pas moo leen lënkale di ay julit ña nga leen di mettital mettital gu rëy rëy rëy bi yëf yi tàmbalee ba tey ñi nga xam ne dañuy saytoo ko xool dañuy wax ni vingt cinq mille ci ay nit faatu nañ fa muy centre Afrique gi jege ñu lool nga xam ni daanaka lim boobu bu ñu la ko limalee ni la ay nit faatu nañ ci te la ci ëpp di ay góor ay ay jigéen ak ay màggat jàpp naa ne da nga xam ne mbir mi simple la tudd ñaareel bi am na ay jullit yoo xam ne ca seen biir jàkk la ñu nekk di julli jumaa dañ leen faa fekk bombardé leen ñoom ñëpp am na ñoo xamante ni ci seen biir jàkk lañ leen fekk ñuy julli dañ leen faa fekk faagaagale ñoom ñëpp bombardé leen ñu faatu am na ay innocent yoo xam ne ñoom xamuñ sax xew yàlla xam na ko sax lu xew ñoom daanaka mën naa ni ñoom buñ doon lim sax dañ leen di war a bañ a limaale faagaagal nañ leen ngir ni jàpp nañ ni ñii kat ñoom ay jullit lañ ay góor ña nga fay dee ay jigéen ña nga fay dee ay màggat ña nga fay faatu waaye ay tuut tànk tamit ña nga fay faatu loolu day mbokk yi li mu lay wan mooy jullit ñi ci seen yëg-yëg yi wallahi dafa faatu ca jamono ju yàgg ja am na benn buur bu ñuy wax Mu'tasim la àlla nettali nañ ko ci yeneen xutba yu jàll keroog bi benn yéefér rombee ab jullit buy muur mu xëcc kol ga kol ga rës aw yaramam feeñ mbokkum julit daal di daw di ko wallu yéeféer ba rey julit ba benn jigéen dafa daw ba ci buntu paleb Mu'tasim nga xam ni moo jiite woon jullit ñi daal di koy yuuxu ni ko waa Mu'tasima maa ngi yuuxu di woo amirul muminin Mu'tasim Mu'tasim yabal ndaw mu génn lu xew mu ni ko yow de yow la yàlla teg ci xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa yaa ngi seetaan ba ñuy xotti ormay benn jigéen ci ab dëkk ba reyaale ci benn jullit ci ab dëkk Mu'tasim keroog dafa giñ ci yàlla ni dootul am jàmm lu dul dëkk ba mu def leen a faagaagal te nam ko waxee woon nun la ko defee yàlla yàlla fay ko yiw moo waroon a nekk yëg-yëgub jullit mooy du bàyyi ñuy faagaagal ak bu ndoxataal mbokkum jullitam tam fekk mu man ci dara ay réfugié ay ñoo xamante ni ay daw làqu lañ ay nit yoo xamante ni amuñ fu ñu jëm ñi ngi leen di def ci ay roni tànt yoo xam ni yàlla xam ne ni tànt yi mënu leen a fajal naaj mënu leen a fajal la nga xamante ni mooy ab sedd te xam ngeen ci jamonoy sedd lañu nekk ndox mu baax mu ñu naan sax barab yañ nekk amu fa ay sayaan ak ay ndox yoo xamante ni daanaka bu nit bu ko nit tiimoon sax seexlu na koo sangoo am na ci ay daw làpp ñoo xamante ni yooya la ñuy jëfandikoo am na dëkk ci dëkk yi nekk ci biir Cameroun lu mat juróom-ñett fukki junni ci ay daw làqu daw nañ dugg fa boo demee Tchad ci réew yi frontière ak moom la bokk kadalika daanaka lim bu di toll xoolal vingt cinq mille personnes ñu ne la yii faat nañ leen juróom-ñett fukki junni nit yoo xamante ni génn nañ nekk ay daw làqu dugg ñee dugg Cameroun ñee dugg Tchad ñee dugg feneen kenn ku ca nekk yëgal ni la ko tax a daw mooy ngëm yàllaam lay rawale ak pas-pasam wa illaa bu génnoon ci islaam kenn du ko bundu xataal mbokk yi ci pas-pas ñu xam ni lii day responsabilité la boo xamante ni wallahi yàlla danañ ko laaj ndax da koy laaj xeetu yépp ndax daf lu koy laaj kenn par kenn ndax daf koy laaj responsable yi ci àddina bi yàlla xam waaye yàlla moom danañu ko laaj subhanahu wa taala te loolu day dëggal waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ci pas-pas la an la kenn ci ñun mën naa laaj ab laaj waaw ana addina bi ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee mbootaayu xeet bi ana ñi nga xam ne ñooy défendre droit de l'homme jàpp ne ab jullit buñ nit nit rek waxuñu jullit nit rek bu buñ ko tooñee dañ ko war a défendre ba mu am dëggam ñiy wootewoo droit de l'homme ndax ñooñu dégg nañ seen baat déedéet rabita bi nga xamante nii moom moo jiite jullit yi ne ci addina bi yépp ligue mondiale bi nga xam ne moo jiite jullit ci àddina bi yépp ndax dégg nañ leen ñu wax déedéet allahuma bu ñu leen déggee daanaka wax yoo xamante ne daanaka bu doon xorom la ñu naan xoromu cin wax la ju amul benn dayoo parce que jàpp naa ni mbokk mi nga bokkal deret sa baay sa yaay buñ ko defoon kenn buñ ko defoon ci nii ñuy def yii dees na la dégg waaye ba léegi daanaka déggoo kenn ay nit yoo xam ni ñu gëm yàlla lañ ñu de déedéet wallahi tooñ amu ci xeex bi muy mu yéeg mu wàcc mu gudd mu sori diggante lislaam la ak bitim lislaam kese dama jàpp ni su fekkee loolu am na kon jaadu na ñi nga xamante ni ñooy ay julit ñu jóg wax ci ñay xutba xutba ci président yi wax ci réew yi nga xamante ni ñoo jiite réewi lislaam yi tàmbale ko ci Arabie Saoudite ci réew yi gën a mag ba ci réew yu ndaw ndawaan yi nga xam ne ay julit lañ ñu jóg wax ci parce que seeni mbokki julit la ñuy fitnaal tey li gën a kéemtaane mooy fitna day am nga jàpp ne amul ci sam réew wala boog sori na la waaye jàpp na ne buy laaw ba yegg si ci sa kaw dalay bett mbir yi bi mu amee ca Afghanistan ñu jógee fa am lu am Libi ñu jógee fa am lu am feneen jullit ñi di seetaan rogalaat na ba dugg Égypte tey lii dugg Égypte dëgg la seetlukat yi bettu leen parce que xam nga ne dañoo toll ci jamonoy sawra nit ñi dañuy révolté waaye ñi nga xamante ni ñoom xam nañ dëgg xam nañ ni mbir mi mënoon naa bañ a yegg foofu que seetaan bu waa addina bi seetaan moom moo ko waral amee ñi nga xamante ni ñoom ñoo jëkk ci réew ma di ay julit ak ñu dul ay julit def nañ ay jéego waaye jéego yooyu daanaka dafa naax saay amul benn njariñ lii moo waral am na benn kuréel boo xam ne ay boroomi xam-xam ñoo ko séq ñu tuddee ko ittihaadu ulama afriqiya muy mbooloom mi nga xam ni borom xam-xam yi séq réewu Afrique yi ñoom ñoo séq mbootaay googa nga xam ne juróom fukki dëkk bokk nañ ca mbootaay googa sunu réew mii Sénégal ca la bokk am na ci ay borom yi xam-xam fii ci réew mi ñoo xam ne ca mbootaay googa lañ bokk mbootaay googu bi ñu jógee yëg ni kat wax dëgg yàlla jullit ñi ñi ngi leen di fitnaal ñi ngi am ci ay mettiti xol loo xam ni yàlla rek moo xam na mu toll liñ lay wan ci télé bi ak la am wallahi sore nañ lool ba ñu jógee ñoom def nañ ab tënk tënk boo bokk na ci tomb yi may bëgg a wax dem nañ ba seetlu ni jaadu nañu gaaw jóg wax ci xeex boobu am centre Afrique ndax kat jéego biñ ci njëkk a def dafa yàqu jéego biñ ci njëkk def mooy dañoo sàkk woon njiit la gën a mag ci jullit ñi ci réew moomu di centre Afrique nañ ko indi njiit li gën a mag ci yéeféer yi ci ñi nga xam ñoo ay julit nañ ko tànn ñu indi ñu def benn taabul ronde ci télévision bi addina bi yépp di leen dégg ki jiite julit ñi mu ne ah yéen julit ñi téye leen seen ngànnaay te ngeen bàyyi xeex bi ndax jàmm moo gën ka jiite yéeféer yi def noonu waaye def nañ ko bañ ko defee gis nga fi mujj fa mujj mooy jullit ñi tànn nañ benn borom xam-xam bu mag bu ñuy wax osmaan benn Fayo nga xam ci borom xam-xam yi gën a mag ci centre Afrique la bokk mu ñëw toog ñu tànn beneen waay boo xam ni mi ngi tudd Zozo Marigo wala Erigo nga xam ni bokk na ci ñi kilifa yi gën a mag yi jiite yéefér yi ñu ñëw toog ka jiite julli ñi muy Ousmane Ben Fayo mu ni jox naa ndigal bépp jullit boo xam ni yaa ngi ci réew mi même bu geer bi amee nañ teg ngànnaay yi ci suuf ñu toog waxtaan jullit ñi déggal ko ñoom it teg seen ngaan ngànnaay jullit ñi jëfe seen diine noonu rek lañ leen mas a xamee nag kële ni yéeféer yi nañ teg seeni ngànnaay ñu ni waaw dinañ teg sunu ngànnaay nekk ñoom teguñu seen ngànnaay loolu moo waral xeex bi metti nii parce que jullit ñi dañoo teg seeni ngànnaay ba jàpp ni yëf yi jeex na ba gaa yi saytu leen ba xam ni jullit ñi fi ne wéer nañ seeni ngànnaay ñu daw bett leen gannaaw song leen te loolu jamono bi muy am fekk na France ma nga fa ndawi France ña nga fa lu kenn dul werante ñemeñ koo wax ak ragal ko wax moo fi nekk waaye lu kenn dul werante ni loola yëg na ko da caa ànd dafa saay saay ànd ci moom France yëg na loolu ndax loolu ku xam France ak réewi Europe yi seen i jumtukaay ni mu magee surtout ci wàllu doxum jàmm indi musiba liñ ci man bañ koy def yëg nañ ko waaye lii la muy wane mooy ñoom dañoo fara comme dañoo far nag parce que ñee duñu ay julit ñoo dal ci kaw ay julit ah ñoom seen yoon nekku ci ñu gis ni kon loola jul na fasal bu rëy rëy muy échec bu rëy ñaareel bi gis nañ ni bi loolu amee la ca faatu ci ay doomu aadama kenn xamul lu mu xam ngeen ni mbooloo moo xam ne dañoo ñaari mbooloo yu jàkkaarloo di xeex ñun teg leen seen i ngànnaay mbooloo mi teg ay ngànnaayam fële ñëw toog di wutum jaamu nga bett leen fa nekk di wutum jàmm jàpp naa ne bu fekkee da nga leen a gañe jàpp ni loolu am doole la nax nga sa bopp ah kuy bettaate dafa fekk yow ñemewoo bokk na ci yéen tënk jaadu na ci ñi nga xam ne ñoo jiite ay réew ñu jóg wax ci lu mel nii barki dem boo njaay lu mel nii amoon na Rwanda ba mu fa amee lu ëpp téeméeri junni cent mille personnes faatu woon nañ fi loolu nit ñi xam nañ ñi ko yëg yëg nañ ko te dara lu ko lu dul boo dëkkante ci aw xeet diggante ay jullit ak ñu dul jullit diggante euh, xeet wi xeet wee loola waral na daanaka téeméeri junni ci ay nit faatu woon nañ fi loolu ñu teg ci bët nag gisaat lu mel nii buñ ci waxul dañuy jàpp ne lu mel noonu mën naa amaat fii te la ko jëlee fële indi ko fii mën na koo jëlee foofu yóbbu ko feneen te ci boppam lu mat la ca wutukaay bi bokk ci yiñ mooy saa bu ñu gaawul jóg day wax ci lii mën naa indi guerre civile bu metti boo xam du yem ca réew moom waaye danay jàll ci yeneen i réew jàpp naa ne ñun Sénégal buñ nee Centrafrique sori na xam ngeen ne soriwul te bërki dem boo njaay am na lu fi amoon Mali gii jege lool yu mel noonu ay yëf la fi yëf yëfaan la yoo xam ni ku di seetlukat boo seetloo fi ne dafa tàmbalee wër ci àddina bi maanaam affaire bi dafay wër àddina bi moo tàmbalee soppiku ndax yonent bi waxoon na ko sallallahu alayhi wa sallam waaye nag jàpp naa ni lii day man li ma ciy teg mooy su fekkoon te ni ay julit ñoo ko def ñu dul ay julit ba léegi dégg nga àddina bi yépp ñu jug taxaw ñaata yoon nga dégg benn jullit boo xam ne dafa dem explosé benn benn nangam dëgg la jullit bu juumee dafa juum ñun duñ faral benn jullit bu juum donte ab jullit nga nga juum def loo warul def ci kaw ay yeefeer dañuy jàpp ne yow jullit bi da ngaa juum dañ laa war a yar waaye mbokk yi bu ay jullit fekkoon ay chrétien ci seen biir église taal ko ba léegi dégg nga àddina bi yëpp juga ko dal di tëba ko dal te ay jullit nañ leen seen biir jumaat taal ko te ba léegi déggoo ko yëngatu su fekkoon jullit ñi ñoo jugoon dem fekk ñu dul ay jullit bombardé leen ci seen biir église ba ñuy jaamoo seen seen yàlla borom nee nañ zaamu su fekkoon jullit ñee ko def ba léegi yaa ngi dégg nit ñaa ngi tabaka dal te fekk nañ leen seen biir jàkka bombardé leen te ba léegi kenn waxut moo xam européens yi la moo xam ñi jiite adduna bi ci wàllu am doole la moo xam mbootaayu xeet wi la moo xam fu lu mën a doon ba léegi déggoo kenn maanaam wax yu ñàkk fayda di ko sobantal fekk ay julit yu bare bare bare bare yoo xamante daanaka ñaar fukki jundi ak juróom mat nañ ko yoo xamante ni faatu nañ te fekk leen faat mooy wa ma naqamu minhum illa an yuminu billahi al aziz al hamid ndax gis nañ ni réew ma kat suñu sàgganee dina des tuuti ci loxoy julit ñi lay mujj kon nañ gaaw faagaagal leen waaye loolu mi ngi firndeel li ma waxoon sànq rek la suñu borom waxoon wa nuridu an na ala alladina studaifu fi l ardi wa najcalakum a'immata wa najcalahum alwarisin danañ baaxe ñi gëm yàlla ci kaw suuf ñoom ñi ñu néewal doole waaye ñoom ñooy mujjee mbir lii may bëgg a wax ku amuk bët te amuk seetlu te yàlla bàyyi la fi ga gudd fan teg ci bët ngay xool tey àddina bi li xew Syrie mi ngi fay xew jullit ñi di ko gis ba léegi kenn yàbb nangu ci bi yàbbi nangu tax ñuy wax parce que am na loo xam ni jullit ñi am nañ dooley mën koo fay la te ñu mën koo fay rek dafa am jullit ñoo xamante nii seen seen tiiri ndigg yéefar yee ko téye moo tax balaa ñoo buuse dañoo am ndigal loolu nag du loo xam ni ñoom dañ koy wax ca kaw waaye loolu mooy li am yonent bi gis salaatu wasalaam ci bichaara yi mu joxe woon day wax ni texe de ñeel na saam ak waa saam muy siri gis ngeen xeex bii ngeen di gis nii bu soobee yàlla siri kañ lay jeex yàlla moo ko xam gis nga bu jàllee bu soobee yàlla dinañ gis xeetu kéemtaan ak am doole goo xam ni jullit ñi danañ ko am doolee foofa ca réew ma moo xam ni kenn mosu ko woon foog ci àddina te loolu waxu yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam ay xadiis yu wér ci ay xabaar yoo xamante ni min axbaar al gaybiya yonent bi nettali woon ko sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni ku lëñbët ahadisu Shaam muy xadis yi nga xam dafa ñëw di wax ci Shaam ak ay ngëneelam ak yëf-yëfaat yi fay xew waa dinay tukki lii wallahi ci li yonent bi waxoon la bokk sallallahu alayhi wa sallam yu mel noonu nag dëgg la dana dëfal mbaa mu dalal xelum ku gëm yàlla mu xam ni dëgg la méttit am na waaye borom bi subhanahu wa taala moom seetaanut waaye nag moom ab appam mooy jot rek mu doog a def la muy def mbootaay googu nga xam ne mooy ittihaadu ulama afriqiya nga xam ne mooy mbootaay gi jiite borom xam-xam yi séq réew Afrique yi bokk na ci yi ñuy wax mooy jaadu na bépp imaam ci jàkk ñu ngi sàkku ci bépp imaam su mënee def xutbaam wala ay bayaanam wala njàngaleem ci xew-xew yi am ci centre Afrique leeralal jullit ñi liy xew lin lay wan ci télévision bi ak li am déedéet bokkul de liñ lay wax moo waral geer bi ak li am bokkul de du guerre boddikante ci xeet de wallahi du ko guerre la boo xam ne mi ngi ndox ci diggante ab jullit bu bëggul yéeféer bu bëggul jullit bu naan ndox fii ci dëkk bi nañ leen faagagal jële leen fii loolu mooy li am parce que addina bi toll na foo xam ne daanaka yi nga xamante ni mooy daw ci média yi ña ko yore comme daanaka boo seetloo lu ci ëpp ay juif lañ ak ñeneen daanaka la leen neex mooy daw lu leen neexul du ca daw coppat fii seet yeneen arrangé ñu wane ko jàpp nañ ni am na yëf yëfaan yoo xam ne buñ ko wane woon tey mashaairu jullit ñu yëngatiku kenn du ko wane tey jii xam ngeen lii may wax moo xam France Inter la moo xam RFI la moo xam feneen la moo xam rajo yi télé yi ngeen di gis bu ngeen seetloo la ñuy génne ak lii am du bokk xëy na chaîne yi ci tane bokk na ci fu mel ni Al Jazeera nga xam ne lu bon bon bon sax wax dëgg yàlla du ma moo ci tane moo ci gën sax laay wax parce que am na ay xaqaayiq yoo xam dana ko génne la amoon Afghanistan la amoon Libye la amoon fu mën a doon bu ngeen seetloo ñi doon suivre information yi li ñu doon wan ci télé bi ak ñi nga xamante ni def nañ ko ay cassette téye ko nga toog ko seetaan ko di nga xam ne lan lay wax ni mooy lii am ak ñu lay wan loolu bokkul. ndax am na yoo xamante ni saa boo ko wanee kat adduna bi day daal di yëngatu te comme ñoo yore média yi nu leen neex la ñuy jàllale ñi nga xam ne yàlla may na leen kàddu nit ñi di leen déglu. ñuy sàkku ci ñoom comme ci mën a doon ku kàddu gi yegsi ci moom na leeralal nit ñi ni lii di am de lu metti la say mbokki julit say mbokki pas-pas la ñuy faagaagal di leen rendi wallahi am na ci ñoo xam ne rendi lañ leen def comme ni ñu rendee xaru tabaski am na ci ñoo xam ne dañu ne ak paak comme ni ñuy rendee xaru tabaski am na ñoo xam ne ñoom yëguñu xew seen kër lañ leen fekk rek am na njaboot yoo xam ne daanaka kër ga kenn du des ñëpp la ñuy bombardé dañuy bàyyi ba guddi rek ñëw tiim bombardé kër gi ñëpp daal di faatoondoo waaye nag loolu lu metti la lu naqari la ci dégg-dégg ci ko koo xam ne ngëm yàlla mi ngi ko ci sa xol waaye nag borom bi subhanahu wa taala ku bari ay tawfiq la ndax ka nga xamante nii moom lañ def loola de insha allah ñu ngi yaakaar ci moom yërmande suñu borom ak njëggalam waaye loolu mënul tax diine fay déedéet ba yëf yi tàmbalee ba tey nag réew yi musa am guerre guerre yi nga xam ne lislaam ko tax a jóg ba tey ñaata julit lañu ñu rey ñaata la faagaagal te ba tey lislaam ma ngay mel na muy mel ba tey lislaam mi ngi gën a am doole mbir la moo xamante ni jullit ñi ñooy saaf yaafu saka yaa sàggan waaye borom bi koy wattul boppam moom ñu ngi koy wattu subhanahu wa taala bokk tey bokk na ci yi ñuy sàkk jàkka yi nga xam ne ña ngi fay julli te man fay def qunut nañ fay def qunut di ñaan yàlla subhanahu wa taala mooy nit ki julli ba sa julli jeex ca jeexinte la jullit ga nga tàllal say loxo ginnaaw rukoo nga ñaan yàlla loolu nag ñaar moo ci gën a siiw xunutu witr ak xunutu nawazil xunutu witr mooy boo defee sa witr ci guddi gi ba noppi nga ñaan xunutu nawazil nag moom la ñuy wax nawazil mooy mënees na ko def fajar mënees na ko def tisbaar mënees na ko def tàkkusaan mënees na ko def timis mënees na ko def gée ku jàng téere yi fiq yi borom xam-xam dañuy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam saa bu yu métti yu mel nii a am ci jullit ñi ci beneen réew daana def xunuut mooy yëkkati ay loxoom ci biir julli ca jeexintal ba ca mujjantalu ràkka ba mu yëkkati ay loxoom mu ñaan borom subhanahu wa taala mu not faagaagal noonu yi nga xamante ni ñooy noggatu lislaam ak jullit ñi waaye mu dimbali suturaal ñi nga xamante ni ñooy jullit ñi ak seenu njoboot bokk na ci yi nga xamante ni dañuy koy sàkku mooy ñi nga xamante ni ñooy ay ONG ci addina bi ONG yi nga xam moo xam ay orphelins la ñuy dimbali ay jirim moo xam ay teen la ñuy gas moo xam lu ñuy mën a def nañu yëg ni loolu ñuy def lu baax la waaye am na seeni mbokki jullit yoo xamante ni ñi ngi soxla lu ñu lekk ñoom ñi ngi soxla lu ñu naan ñi ngi soxla fu ñu tëdd ñooña bu ñu mënee fexe seeni ndimbal yegg ca ñoom loola jàpp naa ni jihad fi sabilillah du ko gën a rëy bokk na ci yi nga xamante ni ñu ngi koy sàkku tamit mooy réewu jullit yi yaafus gi ñu àndal seeni njiit ba tax bu lu ni këtt ni joon rek faw ñu dem ci tubaab yi wala yéefar yi sàkku ci ñoom ndimbal wala ñoom ñoo mën a fay daay gi xam ngeen ni tey réewu jullit ñi sax dëgg la am na ci ñoo xamante ni doon nañ jéem doon nañ jéem a jóg ni dañ koy fay waaye nag xam ngeen ni àddina bi ni muy doxee loolu du yomb li waral du yomb mooy yéefar yi am nañ doole ci jiite àddina bi jiite goo xam ne fi ne bu jullit ñi jugoon fi ne dañu dem fay daay gi eh, seen yoon néew ci bàyyi leen mbootaay xeet yi lijjanti ko lu ko waral parce que lii nekkut mbirum diine waaye mbirum boddikonte ci xeet la gis nga loolu la ñu wax de fi ne amul benn réew ci réewu julli ñi ku am fitu ñëw ni damay ñëw pour dimbale ne war a nangam ñépp a ngi toog lu tax parce que lañ leen di wax ñoom xam nañ ne du dëgg waaye mënuñu koo weddi mi ngi mel ni mag mu nekk sa kilifa taxaw fenn ci sa kanam te sa ñoo ko wax da ngay fenn mbir lii du mbirum diine waaye mbirum boddikatu ci wàllu xeet la kon du bu ngeen defee nii bu ëllëgee keneen def noonu ci meneen réew soroxo soroxo mooy am bàyyi leen mbootaayu xeet yi ñu lijjanti ko waaye mbootaayu xeet yi ñoom bu ñu def lan lan def leen seen i ñu teg seen i ngànnaay ñee dem noggatu ña nga xam ñoo tegoon seen i ngànnaay te loolu ña ña jiite foofu yëg nañ ko gis nañ ko ña jiite yëg nañ ko gis nañ ko adduna bi xam ngeen ni muy doxee tey réew yi yéefee cee am doole lool waaye nag borom bi subhanahu wa taala moo ëpp doole ñëpp ci tënk ñu xam ni suñuy mbokk julit suñuy mbokki pas-pas ndax jaadu woon na ñuy tëbaka dal centre Afrique tàkk na jëli leen doomi Sénégal yi fa nekk tàkk na jël bañ jëli doomi Sénégal yi ñëpp ni muut waaw ndax ab Sénégal dafa desatut kon yow sak way yéegul ci ngay fippu ak a mer ak say sirit di jug ngir sa mbokkum pas-pas waaye da ngay fippoo mer ngir sa mbokkum deret wala mbokk moo bokkal réew ñaareel bi ndax jaadu na mbir ba mu amee ba tey amul benn réew boo xam ne am na doole même bu jugul dem àtte ji wala mu jug yónni ay soldaaram mu jug def ay effort amam al aalami kulli addina bi yëpp xam ni réew diw sàngam kat wax dëgg yàlla def na effort xëy na daa mënut wala daa mënta yegg wala dafa am ay gàllankoor waaye ba léegi daanaka dis discours yi ngay dégg yëpp daanaka discours yi naax saay lay doon loolu nag waral na mbokk yi jaadu na ci képp ku gëm yàlla même bu ko imam deful ci jàkka yow yaa moom sa julli ci sa biir kër say nawaafil yaa ko moom nga tàllal say loxo nga ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla dimbali sa mbokk jullit yooyu nga xam ne ñoo fa nekk di leen noggatu xam ngeen ni lim bu doy nii ñaar fukki euh, nuntrati euh, vingt cinq mille personnes ñaar fukki junni nit ak juróom yoo xam ni faatu nañ te ñuy ñoo xam ni ay jullit lañ ay gone nekk ci ay màggat nekk ca ay borom juróom ñaar fukki at ñoo xam bu ñu leen reyul woon sax ñoom lee ñu faatu jàpp naa ne loola bépp jullit boo xam ni ma ngay am jàmm fa mu nekk yëg ni dara xewut kooku na vérifié waat ngëm yàlla beneen bi ci toog mooy borom bi subhanahu wa day moom mooy seet ku ko soob ci ay jaama mu natt ko lii nag addina bi yëpp ñu ngi koy seetaan waaye bu ñu fàtte ni yu mel nii saabu tàmbalee day wër fi ne jeexagul de jàmm la ñuy ñaan yàlla subhanahu wa kenn ku ci nekkit booy ñaan ci réew mu nga dëkk ngay tàmbalee waaye lislaam ci boppam jeneen diine judut moom dana ko bàyyi tout tranquillement wala fii ba àddina bi tukki ay musiba la ñuy dund ndax borom diine ji moo garanti woon ni diine ji dana ko sàmm ba yobal qiyaam fi ak yonent yàlla isa ñëwul ba jóge fii isa am dëgg mi laa wax muy isa mi yonent mi waxoon waxuma isa foo yi fii ak mahdi dikkul ba jóge fii dama ni diiney lislaam du dañ di am doole ba yàlla subhanahu wa taala dogal la muy dogal ba bis ba nga xamante ni kaaba gii danañ ko toj yonente bi saa salaam wax na lu mel noonu kaaba gii ngeen di gis bis dana ñëw danañ ko mas a toj te loolu day fekk daanaka toj ga nag mooy daanaka moom toj àddina tukki ginnaaw suba tojut àddina tukki ginnaaw suba lay doon ndax day fekk ci catal jeexitalu àddina bi lay doon loolu ay xadis ñëw na ci yu bare bare ci axbaar ah, alaamatu saa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko leeral nu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala yal na yàlla wallu sunu mbokk yooyu nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci ay fitna yal na yàlla faagaagal noot ña nga xamante ni ñoom ñooy seeni noon اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم عليك باعدائك اعداء الدين اللهم انصر المستضعفين في افريقيا الوسطى وفي كل مكان اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا اللهم احقن دماء اخواننا المسلمين اللهم امن روعاتهم واستر عوراتهم واحفظهم من كل سوء يا ارحم الراحمين اللهم عليك باعدائك واعداء دينك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم عليك باعدائك